sànq ci wëy mi <laughs> d'accord ba tey ci arrestation kii di euh, Doro Gueye homme d'affaires ce 27 mai lañ ko daal di euh, jàpp li tax ñu jàpp ko nag vidéo bi bu baaxee ngeen jox ñu ko ñu déglu li waral arrestation ki nga xamante ne moom mooy Doro Gueye Actualité, l'homme d'affaires euh, Doro Gaye arrêté, shérif. Il a été interpellé hier soir, lundi, dans un hôtel de la place sur la corniche euh, de Dakar et placé en position de garde à vue selon le journal Libération. Euh, cette affaire porte sur une rocambolesque affaire justement foncière portant euh, sur des faux-baux d'une valeur d'1,2 milliard de francs CFA. Le journal nous apprend que celui qu'on surnomme PDG s'est défauché sur le président, l'ancien président Macky Sall qui lui avait octroyé ses baux sur le site de l'ANC aéroport de Dakar euh, qu'il a vendu ses terrains mais, aussi financé euh, certaines missions secrètes qui lui était assigné. C'est ce qu'il a dit en tout cas aux enquêteurs, selon toujours Fatih, le journal Libération. D'autres euh, personnes entre les mains de la justice, euh, Badiakhate et Imam Chertidjandaou, euh, ils, sont, ils seront fixés sur... l'homme d'affaires Doro qui n'a bi ñu ko jàppee daal di koy euh, teg garde à vue moom nag li ko arrêté mooy mbirum foncier ak li nga xamante ne jàpp nañ ni escroquerie la Tange Doro Gueye mu ngi noonu ñoo ko déggandoo arrestation bi ñu nammeeku ko ci lënd bi mu ngi mel ni tullak man la ci réew mi mais sénégalais yi dafa mel ni dañoo bëgg a jël mbir mi daal di koy politiser te affaire bi yaakaar naa c'est privé entre kiy jaay la ak kiy jënd waaw juste il faut que ñu indi benn rebondissement sur l'affaire Doro Gueye ak ki nga xamante ni mooy Zaki Yallou Sow mm-hmm. diggante ñaari nit la mm-hmm. litige foncier bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey ñu koy dégg nit ku la jaay suuf suuf si am problème nga yóbbu ko ci yoon Doro Gueye je crois que amul benn influence ci régime mu Macky Sall Doro Gueye gisuñu ministère bu mu occupé Doro géey gisuñu budget bu ko état du Sénégal daal di voter hmm. kenn mësu ko gis Doro gay mosuñu ko gis mu am sañ-sañ jël décret daal di nommer nit gay Gueye ko gis mu nom bu fal kenn Doro Gueye mosuñu gis fu ñu Sénégal Doro gay taxaw fa am benn posture boo xamante ni jël na ci turu Sénégal c'est un citoyen sénégalais comme tous les citoyens sénégalais comme Zeyna comme Abdou Nguer comme man xaw ma ko xamaatuma ko dama yàgg dégg turam ci Wally Seck laa ko xamee ci way bu ko way comme nu muy woyee Massamba di woy Mademba di woy ñeneen Doro Gueye nag su jëlee jaay ay suuf du Doro Gueye fi jaay fi jaay bare na donc li ma jàpp ni que Doro Gueye moo jaay ay suuf suuf yi ki mu ko jaay xëy na am na problème yàgg nañu jaay suuf mu ci am ay problème kon donc loolu diggante Doro Gueye la ak ki ko porté ji plainte pour escroquerie escroquerie nag délit la boo xamante ni yoon da koy tere. Hmm. escroquerie ak abus de confiance di nga ci jël trois ba six mois de prison loolu mooy escroquerie. Hmm. Doro Gueye kan la escroqué Zakiyatul la la escroqué Doro Gueye dafa escroqué Sénégal Doro Gueye dafa escroqué alalu Sénégal il faut que ñu génn ci li nga xamante ne mooy terrorisme bi génn ci manipulation bi di joxe la bonne information nit waroo yéene sa moromu doomu aadama lu ñaaw nit ku dul juum amul li dal tey Doro Gueye mën na la dal mën na ma dal mën na dal keneen nit da nga war a am yéene bu baax Olof Ndiaye nag nee na yéene néeg la borom ba cay fanaan kon il faut que les Sénégalais arrêtent pourquoi il arrête parce que Doro Gueye ñi ngi ko doon tudd ça veut dire que ñiy wax loolu ce sont des ignorants mooy ay attardé mental xam nga attardé mental maanaam mooy lan mhm. handicap bi gën a bon ci àdduna mooy nga nekk attardé mental du question ni nga am laago de wala sa tànk dag wala sa loxo wala nga muuma wala nga patte de atarde mental mo gëna bon ci lago manam moy ñi nga xamanteni seen xel ñorul ki xelam ñorul nak xalaatu dof lay xalaat xalaatu bayima lay xalaat donc ñoñu ñoo nekk fii di sonal li ni ci affaire Dora Gay Dora Gay il a un problème avec un sénégalais qui s'appelle Zakiatou Sow ay téré la ko jaay kan moko jox téré néna ay bolo yu ko président de la république Macky Sall jox lolu Macky Sall donc mo ci mën a expliqué wu ndagam nag maire maire maireu deuk mën na lu tollu ci 4 hectares 300. ci un fonctionnaire gis na fi déclaration de patrimoine xawma nak mu bind ni hectares trois kan momako octroyé ko moy Sandiara kon tay Macky Sall su ay terrain octroyé ko nit kon da nga maire moo mën a loolu waxutuma la ak nag première institution. voilà kooku moom ak Macky Sall la donc su ñu amee lu ñu ciy lijjanti ak Macky Sall la jaay na ko kan la ko jaay Zakiatou Sow bi mu ko ko jaayee terrain yi am na problème Zakiatou Sow nee na na ko delloo xaalisam Zeyna su ma la jaayoon téléphone bii ma ne la dinaa la indil kayit yi nga yor téléphone bi téléphone bi baaxul indilu ma la kayit bi nga ne ma change delloo ma sama xaalis bëggatuma téléphone bi. delloomal sa xaalis nga yóbbu ma gendarmerie lu ci yoonu état du Sénégal il faut que ñu arrêter seen intimidation ak seen manipulation ça ne va pas marcher ñu ngi koy ñaanal fu mu nekk yàlla na ko fa yàlla génnee njuumte la erreur la ci wàllu aduna la amee erreur ñu nekk àllaaxira juumu ñu defuñu euh, erreur. kon donc li ma jàpp ni que Dora Gueye il a un problème avec un citoyen sénégalais. Mm-hmm. donc yoonu état nekku ci yoonu samba nekku ci. defal nañ ko retour de parquet moom woote na médiation. médiation mooy lan mën naa la jox cinq cent millions la ca des ma fay ko par moratoire ci kanamu juge bi juge bi d'accordul loolu nee na dafay fay un milliard deux cent yi ba tey ñoom yoon may na leen ko suñu yoon newu ci mhm. li am solo nag maanaam mooy ñun ciy tudd il faut que ñu alerte la population mhm. Dora Gueye dégg naa après ñuy wax loolu ñu ne Aziz Ndiaye moo ci topp Elimane Lam moo ci topp effectivement Aziz Ndiaye yëkkati dama lay wax benn affaire mhm. Aziz Ndiaye ak Dora la est-ce que xam nga société bu bu sénégalais mais sénégalais ñooy yor tour la ko da dem France ngay France sax fuy France aéroport ngay ñaari koñ France nga bi wala borom Paris borom Espagne. wala la borom Paris wala borom Espagne ñu la borom Paris borom Espagne loolu waykat yi ñoo jël di ko ci nit il faut qu'on arrête ces genre de trucs amoo fa sax yaay borom Paris ñu ne PDG PDG lan la yi téye ko di ko wax mais bi muy maye xaalisam fi gënoon baax ku am problème nga dem ci moom fi gënoon baax est-ce que posé woon nañu avez lan lay liggéey lan la liggéeyul tey ñooñu ñëw avez di dal ci kawam moo la tax ma wax que gis nga Sénégal ku ko jàngul dootoo comprendre Aziz lan lañ lay wax PDG Aziz Aziz business compagnie Eliman Lam bi muy teg bi muy teg ay Eliman Lamb bi muy teg ay société laa la wax. Eliman Lamb ak Aziz bi ñuy tëgg làmb di jël deux milliards de ko teg ci table di tëgg ay combat di dem Expresso. boobu man maa leen fa doon fekk biir Expresso y avait Maye ak Fatima Ndiaye yoroon service marketing. ba ci premier combat Tafatine ak qui nga xamante ne maanaam Ballagay en 2012 ba ñuy wuti ji sponsoring maa leen fekk Expresso c'était à 18h pour relayer l'information l'information boobu ay 2 milliards de teg ci table pour organiser ay combat boobu y avait pas Macky Sall au pouvoir. Eliman Lam bi muy jaay engrais di am problème ak ki nga xamanteni ni doomu Ibrahima Sène feu yalla na yalla yeureum di sëru Lena Sène tey bi rejoindre Pastef ci walum jaayum engrais bobu xamuñu sax ndax Macky Sall dina nek président de la République Eliman Lam bi muy tek société fi ci Liberté 6 Bobu, xamuñu sax ndax Ablaye Wade dina nek président de la République Eliman Lam Aziz Jaay il travaille avec des fournisseurs fournisseur international ñoy yëkëti ay bateau di leen ko jox ñu jaay delloo leen bi may Lam muy am euh, rendez-vous ak euh, patron Subdenk bi nekk Allemagne pour indi suukar ak diwlin boobu j'adore commencé gul rendez-vous boobu mi ngi amee restaurant le ma am rendez-vous ak Eliman Lam may taxaw xaar ak représentant Lam bu muy Real Madrid club Real Madrid boobu Macky Sall xewul ils travaillent avec des opérateurs économiques Ils ont am influence à travers l'international vous voulez développer ce réseau, da ngay xool ay hommes d'affaires yoo xamante am carnet d'adresse am nañu garantie am nañu crédibilité kon du le régime Macky Sall di est-ce que mës nga dégg marché état wala un appel d'offres pour Eliman Lam gagné wala Aziz Ndiaye. Non. ko génnee ci àdduna amul benn marché état bu Macky Sall mës a jox Eliman Lam wala Aziz Ndiaye mais les sénégalais dañuy sont ci le nit di wax di wax di wax di wax mel ni kuy lekk sa yàpp alors que la ñuy wax maîtriser wuñu ci benn virgule il faut qu'on arrête d'associer des gens sur des trucs démb la ma benn site invité muy xaw ma seen buzz congaan ñëw di ma naan Doro Gaye jàpp nañ ko est-ce que du yow yaa ciy topp est-ce que duñ la woo pour nangam sangam pourquoi sénégalais bi bëgg nga xalaat man dama xam Doro Gaye Doro Gaye benn yoon laa ko bës gis bët ak bët muy le 8 juillet bii passé corridor kin faat place mu ànd ak jabaram war a jël trophée xawma ma Doro ndax dafa ñuul wala dafa xees wala nangam awma numéro téléphone Doro Gueye musumaa wax ak Doro musuma musumaa nuyanteeg Doro Gueye lan moma wara war ak booleeg Doro pourquoi des sénégalais yo xamanteni ni attardé mental lañu ñu seen xel ñorul ben nit su amé problème ñi mën ko duggal melni ni say haine dafa nekk ci xolu sénégalais wala dañu bëgg yéene nit ñi safan nga il faut qu'on arrête et qu'on soit juste su a nag dafa am ñuy def un règlement de compte nous la concernés mais il faut qu'on arrête Doro Gueye il a un problème comme chaque jour ni ngay gisee escroquerie foncière sur temps sur temps escroquerie au visa sur temps et temps bërki démb kilifa bu mu un problème avec Thierno Diallo ce ak Simon escroquerie visa est-ce que c'est dañu ne état du Sénégal qui ko jox xaalis Wal nangam te dem nañu ba tudd ci ay passeport diplomatique il faut qu'on arrête et qu'on soit raisonnable gis nga doora gay il a un problème dañuy ñaan yàlla mu génnee ko fa. Mhm. sàccul deful dara dafa jaay nit ay boo boo yim ko jaay moo am ay problème mu këyit te jamono ji xam ngeen suuf soosu waa Ngor ñi ngi ñoom di ko laajte. Mhm. président jël na décision pour que ñu dakkal affaire suuf si kon donc je crois que problème doora gay Gaye képp ku ci dugal leneen jàppal ni que da ngaa tardé il faut que ñu arrêté gis nga ñi ñuy tudd. Mhm. ce sont des honnêtes citoyens. yi liggéey tekki dara ci Sénégal teg dara ci Sénégal am ay employés dama lay wax tey Jador ñaata employé la am. société transitu Aziz Ndiaye ñaata employé lam société euh, Elimane Niam ñaata employé la tey soo demee chez Katia ñi fay liggéey ñëpp Elimane Lam moo ko fa teg te tey jii ñooñu état bi wala noonu jox liggéey ñaata social la ñuy def màggal Touba ñaata milliards lay Elimane Lam di dugal Touba te mosoo ko gis ñaata milliards lay dugal waawan Aziz Ndiaye ndàngam sangam ci seen ñàq amuñu budget état état joxu leen ñaari salaamaaleykum kon ñuy goqi mooy ñan ministère direction bi ñu voté budget à l'assemblée nationale ñu jox la défal ci nangam Sénégal koku moy gox yi mais kenen kuñ ci tudd ñu ngi lay togn il faut que sénégalais yeewu commencer réfléchir ñu génn ci acharnement yi di xëy suba tel di jël ay photo doomu aadama di ko taf ak nit ko xamanteni ni ko ñi daanam ni def je crois que tooñ weesuwul lolu donc je crois que régime bu bees bi lan lañu wara ñëk arrêter moy li nga xamanteni jël nañ ko parce que ay lanceur d'alerte li lay indi ci réew munoo am RTS muy télévision nationale am ay télévision privée nga ne da jël ay sénégalais lambda yo xam nga né lanceur d'alerte xamuñu sax lu jorg ak jooy xamuñu tax suba jot na wala timis jot donc il faut qu'on arrête et que soit raisonnable d'accord mu ngi noonu ci mbirum arrestation